mo melni tay tey ñoo ci pak bu barkel pak bu tedd di Touba belam di pak hamni xamni Cheikh abdul Ahad ñetteelu khalifa Cheikhul Khadim moko tanalon bopam ci 1969 ci tam xarit wéru tam xarit hamni ko ngir mu nek rek bo xamni bu ñuy jaamo yalla la ak di liggéey sabab soos rek moo taxoon mu sancoon ko donte amoon na ay barab yu bare bari yoo xam ne jiitu na ko lu nekk lu jiitu muy nekk xalifa waaye barab bii bu ràññiku la ba buñ ne boroom beral rek mën nañ ne daal moo gën a siiw ci ay barabam waaye itam lenn rek moo taxoon mu sanc ko muy jaamu yàlla ak di fi liggéeyal sëriñ bu mag bi radiyallahu anhu mi nga xam ni euh, léppam moo ne nee na lim sant boromam mooy jug gim jug rek itam jëpp jëm ci sëriñ bi ci di ko xeñt ak di ko liggéeyal euh, bi mu ko sampee itam ay bokki taalibe yu bare bare indi na leen fi njabootu boppam ñoo xam ni ñi mu ngi leen jële mbaakool andi ñi kajoor fenn fu ci ne rek mu andi leen fi sampal leen fi ay bërëb sampal leen fi ay kër waaye ci lu sorewul dara itam mu defa daari tarbiya ja tudde ko Touba Mouride di fa tarbiya dongo yi nga xam ne ñoom la ko yàlla booleel mooy liggéey boo am am solo boo xam ni mooy liggéey defar doomu aadama ba nga xam ni dana mën a jariñ boppam waaye dana mën a jariñ société bi nga xam ni ci la nekk di ko dund. Mm-hmm. mel na ni Sëñ loolu moo ëppoon ci ab kon bërëb bi ci fànn googu la mën nañ ni bërëb la boo xam ne dañ fi daan tàggate ay nit ba nga xam ni suñ delluwaatee jaxasoo waa société bi danañ mën a soppi société bi waaye société bi duñ leen mën a soppi mm-hmm. te itam mboolem jikko joo xam ni. Uh, aju ci ab julit rek da nga ko fekk ci jëm yoy nga xamni ñom la Cheikh Abdoul Ahad don teug kon man na ne dal pak bi ngeen ñew tay dal pak bu barke la bo xamni mbu mi seigne Abdoul Ahad solo don ci liggéeyal Serigne Touba mel ne xamuñ fan la summi mbub ma waye ci keleni neeg bi ci lañ mu jëg gisee mbub moom mu don liggéeyal Serigne bu mag bi radiyallahu ay bisam lu ëpp ci ay bis nga xamni mom la mujj ci jamono ci kees gi ci la ko ci la ko mujj nga xam ne néeg boobu lal boobu ngeen gis jan lool fi la wàcceel ab liggéey loolu daal mooy cosaanu pàkk bi ñu xam ne itam bi ko sancee itam andi na fi ay kàngam andi na fi ñoo xam ne ñu ràññiku lañ ku ci mel ni sëñ Moussa Alima Guèye mi nga xam ni moom ci bindikati sëriñ bi la sëñ bi taamoon bindam sëñ bu mag bi laa jub la wax sëñ Moussa Alima wax nañu sax moo mujj bindal sëñ bu mag bi radiyallaahu anhu bokkoon ci ñi sëñ bi tànnoon di leen liggéeyloo ci wàll mbind sëñ Abdou bi mu sancee dëkk bi da koo jël andi ko fi mu féete woo ku mel ni sëñ Asasi moom nga xam ni itam sëriñ lu moo ko yóbbuwoon gaje ji mu yar ak njabootam di leen jàngal alxuraan gannaaw ba sëñ Fàllu toxal ko yóbbu ko ndindi sëñ Abdu bi mu sëñcee pàkk bi itam daa jël sëriñ Asa moom mi andi ko ci barab bi mu ne fi di jàngale alxuraanul karim di yar ci diine waaye mu tànn ko mu nekk imaami dëkk bi nga xam ni diirub lim fi ne moom sëriñ Asa moom moo daan taxawee lu aju ci wàllum euh, waxtu yu juróom fii ci dëkk bi. mooy lu am am lu am am solo euh, jàkka jooju ngeen gis ci muy jàkka ju jëkk itam jàkka ju am solo la joo xam ni bi àggee sëñ Abdou Khadir moo ko ñëw li ñuy wax intégration bi sëñ Abdou Khadir moo ko def. daanaka moom moo moo intégré jàkka ju ndaw jooju jàkki ko kiyaas boobu. Mm-hmm. muy jàkka joo xam ni digg nañ ci lu rëy rey xam nañ ku fa julli ñaar rakka euh, ñu damm ñu jéggale say bàkkaar waaye ku fa saxal julli juróom ñu damm sa xalim ak bàkkaar. loolu itam ci ci ci ci ngënee li dëkk bi la bokk kon daal dëkk la boo xam ne euh, lu fi waay sàkku warees naa cee mën a am yaakaar rawatina nag bis bi ngeen fi ñëw di bis bi nga xam ne ci la gane woon jamono ca njaareem ci 1914 te nag yàlla dogal ñun itam at yi yëpp ñu di ko jëmmale fii di ci ànd ak ay bokki taalibe yoo xam ne bokk yu bari fa seef la ñu sopp sëriñ bi ànd ci ak sëñ Abdou Moustapha Touré moom yi nga xam ne itam mooy suñu waajur nekk ak moom di rek mbég moomu sëñ bi amoon sëñ sëñ Abdul Ahad ñu ñëw rek di ko ko màggale màggalale di ko santale di ko sant suñ borom ci boole gi ñu boole sëñ Abdul Ahad ak baaxe gën ko suñu borom baaxe jaare ko ci sew xadim loolu rek mooy moom mooy sabab si ñoo ngi leen di santaat bu baax a baax ñoo xam daal loolu daal mooy mooy mooy mooy cosaanu dëkk bi ci jamonoom ci jamonoom ci jamono am na sax ku baax koo xam ni defoon na ci ay bayit dafa waxoon ni sanca di miir ma ma fas tàggoo deful lu ma fas sëriñ bi yàlla na ni ca xéwal gi xëpp bela xéewal gi mooy suturaal dëkkin wu jag wi nu am dëkkum ngërëm bi nu am kuy jóg di dem gorewul as gor dafay sàmm ngor koo gis demee la mu nar tuubaa belal ku mu ñor doo màng bay niru pël sëriñ bi daa mas a wax ab dëkk mooy ami sa quartier la mooy la mu wax tuubaay belal toogal maam Cheikh Abdoul Ahad bi mu fii ne dafa jàppoon ni tuubaa belal du ab dëkk waaye ab quartier la ci biir Touba moo tax bi mu fi ne nangu fee def ay armeel mhm. nangu fee taxawal itam juma ñu fi ginnaaw bi Touba ubbi ko yaatu ba ci jamono sëñ Saliou nga xam ne jumaa yi bari na mhm. ba ci jamono ju mujj ci la ginnaaw ginnaaw jumaa yi ubbeeku na mhm. ñu doog fee tàmbali jumaa yi di biir diirub li sëñ ne moom daaw ñu fi taxawal eh, julli ajjuma mhm. ngir dafa jàpp ni Euh, ab quartier la rek ci biir Touba waaye du ab du ab dëkk yoon wi moo gudd rek waaye tali yeeg marché yeeg yooyu yëpp Sëñ Abdou ko fenni ak fajukaay lépp Sëñ Abdou fexe woon na ak courant ak téléphone yëpp fexe woon na bi fi ne ba lépp egsi woon na fi ci egsi woon na fi ci ay jamono moom loolu moom moo ko fi indi ay réalisation la ginnaaw bi nag ci at yu mujj yi yeesalaat nañ tali bi ngir yàqu-yàqu yi gisoon nañ ko waaye yeesalaat waaye bi mu fi ne daal lépp lépp mate woon na ko wax dëgg yàlla diirëb lim fi mujj muy bi mu ñëwee xam nañ waxtaanu bi mujj waxtaan ci julli it gi hmm. ci tàggatoo la ko def wane ni àdduna ndewuñ fi di sax ngir sun borom bi mu ko bindee àdduna si day mel ni kaaba gi rek la fi malaaka yi ñëwoon def te ba tuufaanu Seydina Nuux ma ñëwee da ko yóbbu ba fa ko soob mhm. gannaaw ba Seydina Ibrahima ñoom ñoo fi ñëw rëddaat kaaba gi mhm. mu mel ni wane ni ci waxtaan woowu adduna moom kon amul solo ngir kaaba gi Seydina Ibrahima ñoom ñoo ko fi def lane lu fi waaye soxlaa itam ci ndox mi ak ci suuf si rek nga koy jëlee ngir mën a def te lenn lu ci ne mu wane ni kër kër moom moo koy moo koy maye mhm. wane itam ci jullit it googu niin euh, ràpp ak yeneen ya ca aju yëpp nga xam ne loo loo sol balaa yàgg mu ràpp wane ni julli iid gi rek ku sumul mbi mi nga sol balaa ki doog fi mën a andi mhm. loo lekk balaa yàgg mu rees yooyu yëpp day wax yoo xam ne waxi tàggatoo la mhm. wax baa gi sax ni jullikaay bi amul kenn koo xam ne ka gis baa ka jur sa baay ka jur baayam teg nga ci sa bët mhm. waxtaan tàggatoo la woon moo tax bi mu ñëwee fii mu doon tàggatoo ak dongo yi dongo yi nga xam ne ñoo ne woon Touba da leen woo ba ñëw xamal liggéey bi ñu doon ànd ak sëñ moom di ko liggéeyal sëñ Tuubaa dara sànku ci hmm. fi mu jëf seeni jëf tam lépp delluwaat na ko ci sëñ Tuubaa hmm. bégal leen ba nga xam ne keroog xaal yi kawe war na lool hmm. ak it daayira yu bari tam gis nañ ko nga xam ne amul feeñalul benn luy niru ak mettit wala euh, nekk ci ak tàggoo ci wàllu yaram wala wala yu ni demee nga xam moto daa sax day wax ni sëñ Abdou dañoo nax ba dem rek waaye bu fekkee feeñaloon na lenn luy niru ak tawat wala ak tëdd rek danañ am yoo xam danañ ko jëfandikoo mhm. te buñ ko jëfandikoo kon ko kon du dem mhm. kon du dem ndax moom fi mu féete eh, kenn dañu fa mën féete maanaam wax waxaale la jëf jëfaale li ko sëñ Abdou Mouhaïminou Diakhaté doon leerale mhm. loolu sëñ Abdou kenn fekk ko ci moo tax fii ci barab bi daanaka eh, daayira yu bari ci bis boobu mu war a ñëw am na ñoo xam ne sax tàggoo naa ñoom bañ delluwaat Touba bañ delluwaat Touba loolu lépp rek ci naxtaan ngir dara lépp nekk ci ak dal nga xam dal nga xam ne kenn daal euh, xalaatul dara waaw bi mu wàccee liggéey tam fii sëñ Abibu ak sëñ Soxay bi ñëw nañ fi ci guddi ak sëñ Moustapha Saliou ñoom ñëw nañ ci ci ci guddi gi teewe teewe xew-xew boobu nekk ci waajtaay gu ñu dem ngir boobu xëy na ñoo ko gën a jege ci fànn googu waaw loolu daal jàpp nañ ko ci boobu ci lañ ko waajalee andi ko Touba nekk ci xew-xew ba mu doon xew-xew bu doy waar nag ngir loo xam ne kenn wax dëgg yàlla xalaatu ko woon ngir fi mu féete woon yoon wi ak fi mu féete woon askan wi ci ay njëriñu bari yu yaatu njëriñu feeñ ak yu nit mën a teg ba taxoon na ba kenn bàyyiwul woon xel ak demam. santaat nañ leen baax di sant waa leerlu point com di leen ñaanal ci seen jumtukaay tasu xibaar boobu mu nekk jumtukaay boo xam ni day nekk ci. wuyu tur wi muy leeral ku bëgg a leeralu ñu leeral la ba mu leer ci yow ñi nga xam ne sëñ Abdu laat du ci kaw du ci suuf day leeral foo ko mosaa gisul ku baax lay toogal kon ci barke mbootum leeralam googu mu daan leeral eh, ngeen tàbb ci rek ba seen lépp di ak leer ci barke bis bi nga xam ne ak pàkk bi nga xam ne lu fi ñaan mën nañ ci am taw tawfiix mën nañ ci am yaakaar wasalaamaaleykum wa rahmatulah